téere kon ñu eh, fas yéene kon eh, sànni ci ay kàddu waaye comme ñaan dafa am nañ tàmbalee ñaan gi ñaan ñaan gi nag moom ku ko mënul da ngay daal di wax amin rek amin Moy, ba ñu musloo ci seytaane ba pare ñu tari faatiya ak fukki lixlaas ak benn tëje ko salaatu ala ñaan yàlla mu egg ci way dawlu yooyu bu ñëwee lixlaas nag mooy xulóolaaw ahad tari ko nag ba mu te xulóolaaw ahad bu nekk nag da nga koy tàmbalee bismillahi rahmaani rahim accato mu tombe tombe waral ay ga résultat mu mel ni am tombe directeur Diagne mais duñ def lu dul ñëw samay mots c'est pour sargal samay mots pour wax au nom de toute la jeunesse kontaan nañu gis nañu li nga xam ne derrière ces soldats de craie dinaa si ñëwaat gis nañu esprit leadership ak management parce que un vrai un vrai directeur nag c'est un vrai leader enseignant yi xam nañ damay bu baax parce que vous avez à la tête des un personnel boo xam ne tey jii bu ngeen bokkul vision ça serait vraiment quasi impossible mu réaliser vision bi nga soxla ci loolu ngeen tàccul ma directeur bu baax a baax a baax ñu jox ko kàddu gi moom it mu jibal li nga xam ne mooy kàddoom particulièrement à l'ONG Consortium Jeunesse Sénégal, qui avait lancé un concours appel à volontaires pour la création d'une association de jeunes pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire une opportunité pour agir directement sur des problématiques sociales et environnementales de la communauté. C'est ainsi que notre président du comité de gestion, M. Mania Ndiaye, avait choisi parmi les thèmes l'espace vert, à Kermassa. Mes sincères félicitations, Monsieur le Président, pour le travail que vous avez réalisé. Grâce à votre implication et à votre énergie, vous aviez réussi à accomplir brillamment cette tâche qui vous a valu ce prix pour pouvoir organiser cette journée d'excellence. Vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse de Kermassar. Les élèves de l'école PAI 13 sont honorés aujourd'hui en compagnie de leurs parents. 16 élèves issus des 8 classes, dont les deux meilleurs de chaque classe, vont recevoir un cadeau composé d'outils pédagogiques leur servant de bosser leurs connaissances et de persévérer dans le études. En sa première édition, cette cérémonie de remise de prix est initiée par le président du, CGE, M. Ndiaye. Il est soutenu par la marraine, marraine Paye, née Madame vice-présidente du CGE de l'école, de la trésorière Diane Diallo, Madame Diop, le parrain Moussa Kamara, président du mouvement Solidarité Citoyenne André Diapelé, MS4 et les anciens élèves de l'école qui ont tous honoré de leur présence la cérémonie. Mais le choix porté sur notre école n'est pas gratuit. Ceci s'explique d'une part les résultats du CFE des années précédentes et pour cette année, comme l'a dit Dame, L'école avait présenté 78 candidats. 78 candidats présentés, 66 sont déclarés admis, soit un pourcentage de 97,44%. C'est l'occasion aussi de féliciter l'équipe pédagogique et d'autre part de vouloir mettre notre établissement sur les rails de l'excellence. Que cette cérémonie de distribution des prix, soit le début d'un partenariat fécond entre les partenaires et l'école PAI 13. Je vous remercie. Représentants de la commune, délégués de quartier, imam et oustaz, chers Badianogor, chers professionnels de l'enseignement, directeur de l'école 13, chers parents d'élèves, Chers élèves, chers assemblées, c'est avec un immense plaisir et une très grande fierté que je me retrouve ici au nom du consortium Jeunesse Sénégal. C'est un plaisir pour moi car je viens représenter une organisation jeune créée en 2020 par des jeunes et pour les jeunes. Une organisation qui ne cesse de changer des vies. Cette alliance de 18 organisations œuvrant pour l'autonomisation des jeunes du Sénégal à travers trois piliers dont fédérer, influencer et renforcer a mis en place en 2020 le projet Yakar Jeunesse Espoir en français dans la banlieue de Dakar. L'ambition de ce projet est immense et dépasse même l'audace des plus flastes. Cette ambition d'informer, engager, outiller 200 000 jeunes de la banlieue à travers l'emploi et l'entrepreneuriat d'ici 2023. Nous sommes logés au CEDEPS de Wakinan Nimzat, où nous offrons plusieurs opportunités de renforcement de capacités, de formation, d'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat à travers des ateliers, des workshops, des programmes d'incubation et d'événements instructifs. Dans le cadre de ce projet, le CGS a initié en euh, août 2022 le prix de l'engagement communautaire avec comme principal objectif de rendre un vibrant hommage à ces jeunes qui ne ménagent aucun effort pour le développement de leur communauté. Je suis fière aujourd'hui parce que je vois des jeunes qui contribuent dans le développement de leur communauté cette entreprise que nous avons initiée en voulant rendre hommage à ces jeunes-là n'est pas vaine, étant donné qu'elle nous permet d'encourager ces jeunes dans leur communauté, d'inspirer les autres jeunes de cette communauté et famille, devant leur famille, amis. Vraiment, vous avez de quoi être fier de M. Mandiaï. C'est une fierté pour nous parce que nous sommes des jeunes qui encouragent des jeunes. Nous travaillons pour le développement du pays et nous avons confiance en la, au potentiel de cette jeunesse. Donc quand nous voyons des jeunes qui travaillent dans ce même sens, nous sommes vraiment fiers. Et aujourd'hui, c'est une fierté de, se retrouver à Kermassar et de voir toute cette mobilisation, d'entendre qu'il y a des jeunes qui font le même travail que Mandia Ndiaye. Donc c'est une grande fierté pour le consortium Jeunesse Sénégal et nous vous invitons à vous rapprocher de nous parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'autonomisation de la jeunesse, c'est pour le développement des communautés, c'est pour le développement du Sénégal. Merci beaucoup. Merci. mu ne ko man kat tey dama dëgg boobu mi ngi nekk jeune nena nee na dem ne dafa bëgga dem benn soirée. sëñ Babacar ne ko d' accord dem jëndal ko yére yu cher may ko xaalis bëri mais bi mu demee tegu ci 30 minutes mu ñibbisi mu ne ko. waaye yow fi nga demoon tax yàggoo mu ne ko la may lañ fay def xaw ma ko mu ne ko dama la bëggoon yar parce que kenn ku ne dafa am lañ la yare ma xale bi am na noo koy yare su màggee même su demee ci école bi ak fu mu mën ne du du toog di xalaat naan man de su ma deful lii dinañ ma doon déedéet da ko dul xam ba koy def maam nit ki am na loo koy yare tricherie du ko xam ba koy def même su gisee koy def day bizarre ci moom mais am na noo koy noo koy noo koy toppatooy di ci wax ju bari donc après mujj gi da ngay da ngay créer benn psychose te nit ki à chaque fois soo koy tere gis nga nit li mu gën a bëgg mooy li ñu koy tere maam nit ki dafa bëgg bu ñu yegg fële sunu maam aadama looloo ko wàccee si kaw suuf lii fii àjjanaa ngi nii lekkal lu neex mais garab gii bu ko cof fexe na ba xam lan moo nekk ci garab googu maanaam nit dafa sob donc yow bu fi nekk naan kaan bul bul bul bul bul donc jàpp naa ci ci tënk ak ak fédération dam donc loolu lañ bëggoon wax donc di di résumé di wax ne xale dafa nekk loo xamante ni donc mbir mu sensible la surtout su nekkee si yenn âge donc dafa jar comme on a l'habitude de le dire l'éducation nécessite euh, li nga xamante ne mooy le minimum de sacrifice maam yar jàngal xamal dafa laaj sacrifice mais sacrifice boobu que ci ëpp responsabilité parce que xale ñett yi ñoo ko wër mooy l'école ba mooy société ba mais mooy ay parents maanaam famille am te que ci ëpp responsabilité si ñooñee mooy ki nga xamante ne mooy mooy waajuram donc suñu xamee ne responsabilité boobu yàlla moo ñu ko dénk maam yàlla moo ñu jox njaboot am lu ñu sant si njaboot googee te na ñu nekk si société boo xam ne société bu bu bu xaw a jaxasoo la donc nañuy fexe bay jege suñu ay njaboot nañuy fexe bay jege ñi nga xamante ne ñooy jàngal suñu ay njaboot bay fexe ba xam si suñu njaboot li muy li muy jugal muy jaan lu jub si wax ji si borom bi la lu ci dëng ci ab gone gu sob rek <laughs> amoon envie wax na ju bari donc ñu ngi si jégalu bu baax a baax axiru daawaana alhamdulilah salaamaaleykum. mais c'est un acteur communautaire également si macha allah donc waxtaan bi am na solo kon balaa ñuy introduire waa Mamia donc ñi sant rek di gërëm ñi nga xam ne tey jii monsieur Diawara président de l' association des parents d'élèves de Kër Massar Nord le groupe dirigé par Ousmane Ndoye et Assane Kane monsieur Sagne encadreur bi nga xam ne tey jii ca CM Kër ak euh, monsieur Diouf bi nga xam ne ko professeur Mandiaye d'après li mu expliqué Ngonou Fall merci Lassana Dramé Mohamed Fall merci mille merci à toi Mohamed kontaan nañu baax a baax a baax madame Goumbala si kanam mu ngi ñëw Baye Dame Ndiaye mais également am na koo xam ne ne ma bëggoon aussi ngeen tàcc ko muy Mafal Thiam moom moo organisé li yëpp waaye ngeen tàccul ñu ko waaye ah macha allah Mafal kontaan nañ bu baax a baax a baax gis nañu équipe d'organisation bi mais nag la jeunesse féminine également tàcc leen bu baax a baax ñeene ci ginnaaw dooleel ma Ndiaye jàppale ko bu baax a baax et di sant di gërëm aussi Ablaye Diouf et représentant directrice madame Sall de l'unité 12 Mamadou Sow merci beaucoup. yow ci nga bokk kenn du la gërëm donte ndekki moo tax nga xaw a yéex Mamadou Ndoye jërëjëf comme temps bi mu ngi dem damay introduire rek waa Mamia du ma ci wax lu bari. tomber tombés amoureux d'un défi. Apporter la paix et la non-violence. Je suis la rosée de bonheur qui arrose les cœurs. Je suis l'espoir. Penser, réfléchir avant d'agir. Agir, faire pour construire, construire, bâtir un chemin pour l'avenir. Le tout dans un monde en miniature. La scène, une scène pour s'exprimer, une scène pour se libérer, une scène pour dire ce que l'on pense, une scène pour briser le silence, une scène pour chanter. gelecek. Gül gül de gül gül de la. Gül gül de gül gül de la. Gül gül de gül gül de la. Gül gül de gül de la. Gül gül de Ramla, Ramla. xamante ne moom nga ko jox ñun ñëpp ñu comprendre que ni fii ñu nekk ci département de Kër Massar du président Pa Moussa rek moo fi nekk ci autorité donc respect ak attention bi nga am ci moom président Moussa yëg na c'est vrai que moo fi waroon a ñëw tey mais mi ngi ci beneen liguey bo xamanteni intérêt département bu Kër Massar rek la lamu fay jëlé boo ko fa jëlee département de Kër moo koy jëriñoo mais du ñu avancé lu dul dañ leen présenté délégation bi nga xamante ni moom la fi président Pape Moussa yabal man mii ma jiite ko di Bakary Mbaye di son coordonnateur ànd ci ak sunu yaay maman Hawa Gissé bi nga xamante ni seen dëkkandoo la di sunu présidente des femmes. grand Balla bi nga xamanteni il fait partie des membres fondateurs de ce mouvement mais and ci aussi ak Modou secrétaire particulier président Moussa lii mu fi naturellement dama koy wax azaka la ci yéene yi mu am ci xalé yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci école bi envoyé nañu ko ni nañu ko indi muy participation mais bu la ceeg enveloppe bo xamanteni defé defe naa ne solo trop alors nee nañu dina leen ko remettre léegi di leen ñaanal yéene yu rëy yi ngeen am ci xale yi yàlla na ko suñu borom yeggale di excuser bu baax du nu wax lu dul aussi dañoo gërëm nuyu sunu jigéen yi fi nga xamante ni ay autorité lañu administrative yi fi am cër ak taxawaay bu am solo ci département bi ñu leen di ñaanal depuis quelque temps ci ànd ak monsieur ñu leen di ñaanal yéene yi ngeen am charge yi ngeen am di sunu maire Adama Sarr quelle que soit situation c'est le maire ñu koy ñaanal parce que ndama mooy ndamu commune bi yéene ak bëgg-bëgg yi mu ci commune bi yal na ko yàlla def ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm kàddu yi du gudd lool parce que dañoo xaw a yéex a ñëw te jaar faneen te defe naa ne am na yeneen yu fi war a jaar et sunu yaay maire Hawa kaay sànni ci kàddu tuuti en tant que présidente des femmes ndax sunu dugg si ci école bi ci moom mii la jaar. moo fexe ba ñu xam école bi maman ñëwoon defe naa ni ci sa tur ci turu président Moussa Camara mën nga remettre monsieur le directeur moom la président Moussa jébbalaat defe naa ni bu ngeen ko ubbee dina am loo xamante ni dina ko man ci li ngeen di def donc euh, président mën nga sant tuuti gërëm parce que mère Hawa ameel na la ngërëm parce que xam na yëg bi nga am ci moom maa ngi ko koy wax léegi ci yoon wi suñu xamanteeg sunu lépp mi ngi jaar ci ci moom mi muy présence des présence des femmes yu mouvement NSK bi président Moussa jiite mu am ci solo lool moo tax ñu permettre ko mu remettre bi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm rawatina nag ci unité 13 bi ma dëkk maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm directeur di gërëm ñëpp képp ku fi toog ak ñi ñëw ba yàkkamti dem ñu ngi leen di sant di leen gërëm man awma lu dul fii fii laay tiitoroo fii laa dëkk lu wewuma fii laa dëkk kon nag lu ma am fii laa ko yéenee si école bii laa ko yéenee xanaa ma ñàkk bañ a am wante boobu tombee foo xamante dañuy yëkkati di joxe école yi ak feneen ak feneen lu bokk si treize wax dëgg yàlla dama si jël sama wàll andi ko fii laa dëkk fii laay tiituroo fii laa dëkk fii laa tiituroo aw ma fenn lu dul fii dat lu ma guddi guddi fii laay fanaan si ci treize kon nag dama koy tiituroo bu baax directeur nag maa ngi leen sant di la gërëm bu baax a baax a baax yow ñu ngi fi nekkal ñëpp maa ngi sant sama rakk ji sama doomu ndey boobu maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm ñëpp ak ñi ma àndal ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum waa kay maa ngi leen di nuyu bu baax. voilà jërëjëf. jox seen wàccuwaay di am contentement bu bu mag a mag a mag di leen sant encore une fois di leen gërëm bon. Euh, xëy na ci activité yu mel nii rek la ñuy la ñuy jàppee personnes yu bari donc euh, ñuy def rek kàddu yi dañ koy yemale juste ci ay remerciements parce que fu mu nekk nii xëy na amuñu leneen loo xamante ni mun nañ ko ci wax lu gën loolu. donc euh, damay euh, profité d'abord di remercier équipe pédagogique bi donc ci di ko teg ci loxo directeur donc mu séddale ko ñëpp. di remercier également le parrain et la marraine di leen jaajëfal bu baax ci soutien bi taxawu bi. Je remercie également le euh, conseil communal de la jeunesse de Kermassar Nord par le biais du président Demba Demba Ndiaye également Waklabi, donc par le biais de Babacar euh, remercie le président zone 6 M. Mahfou Je remercie tout le monde aussi remercie également un remerciement pour, large si nous nga peut-être euh, en grande partie ñoom bokk nañ et c'est l'ASC Bokk Jëf donc di di remercier ñëpp di ko toog di teg leen xam également nuyoo bi ci loxo président Mohamed Ndiaye ñu mu séddale ko képp koo xamante ni mu ngi ci ASC parce que tey buñ fi accès ASC bi moo tax xëy na ñu accès ñu accès ba fii di leen encouragé waat di di jaajëfal ñëpp di wax na xale yi prix yi ñu leen jox dañoo ñaan yàlla ëllëg si biir gis leen ngeen dam bay repré ba ñuy représenté au niveau national que prix yi mu bañ a yem fii tey donc on vous exige également pour que l'année prochaine également ngeen amaat ay prix ñi nga on a aussi des amuñu nous ñu def le tout ba bokk ci di également parents d'élèves bi di wax ni rek euh, jeunesse buñ ko bëggee tëgg forcément il faut ñu jaar ci xale yi mais ci ban xale la ñuy jaar xale boo xam dañ ko instruire donc raison pour laquelle nañ xoolaat également tàllalaat à bras ouvert école bi àndaat ak moom bu baax a baax xam ni daal école ci li nga xamante ni fa la ñuy jaaree maintenant pour mën a tëgg jeunesse bi nga xamante ni jeunesse bu set la. donc di di jaajëfal partenaires yëpp di jaajëfal euh, ñëpp daal bu baax a baax Mouhamed Fall waa conseil ñëpp daal maa ngi gérer ñëpp leen jaajëfal. waaw di wax ni rek euh, fierté rek la ñu am fu mu nekk nii sincèrement buñ fi waxee rek dañuy guddal rek mais li wax yëpp ñii dañuy dañuy répété rek. bon di remercier encore une fois bu baax a baax di remercier également la marraine également et les parrains di wax ni rek xam naa euh, léegi parrain bi dugg si donc euh, ñu ñu ko accueillir juste après mën a mën a def collecture président Dame Thiam sama mentor sama xarit maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di ko wax ni cër gi cëram la Mariam Sy Goumbala également pareil ak sama yaay yi donc tey ñi fi toog nii sama yaay la ñu représenté donc par le biais également de madame donc président de GIE bi donc maa ngi nuyu sama yaay yëpp di di di jaajëfal ñëpp encore une fois di bañ a rek juum ngeen jéggal bu baax xam ni rek instant bi daal contentement rek moo ñu jot maa ngi jaajëfal ñëpp bu baax a baax et mention spéciale également au CJS s jeunesse jeunesse Sénégal merci beaucoup président merci mentor kontaan nañ trop liggéey bi liggéey bi rafet na yàlla na ko yàlla dëgër maa ngi remercier ñëpp encore une fois merci beaucoup jërëjëf ngeen tàcc ko bu